Monsieur le ministre, Assalamu alaikum, chers collaborateurs des ministres, Monsieur le directeur général du budget, euh, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre Sambassi, ministre de l'Emploi, euh, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, l'emploi ou le travail, je ne sais ministre du Travail. waaw ndegam ndegam ministre de de moo taxaw fii wax ko astama keneen euh, chers collègues je vous salue les tatoueurs madame monsieur le ministre permettez-moi de féliciter votre secrétaire général que je ne connais même pas mais de la qualité des dossiers qu'il nous amène à l'Assemblée nationale trop de finesse qualité merci madame la secrétaire générale euh, pour le travail, parce que j'avais noté ça en commission technique, et c'est important de le dire ici, devant tout le monde et la représentation nationale. Monsieur le ministre, euh, moi je viens tout simplement vous féliciter sur une vieille doléance euh, que j'avais émise à votre rencontre relativement au fonds d'accès à la justice destiné au Sénégalais de la diaspora. Euh, sama combat la woon parce que comme j'avais dit fii kenn indiwu ma fi diaspora ba ma fi indi kon dama jàpp ni su ma waxee ci benn combat ba yàlla def ma am ci benn satisfaction ku ma ci mënti jàppale lu mu tuuti tuuti bëri néew naa la ci sant te yàlla rek tax ndax awma parti pris Sénégal mooy sama parti pris diaspora mooy sama parti pris donc jàpp naa ni ni mu mën a demee doléance boobu metti woon na nga ne di nga ci waxtaan ak sa collègue sénégalais de l'extérieur euh, mu ñëw ngeen jàpp ci alloué leen un montant de deux milliards cent quarante huit million man danaa la ci sant ndax ñooñu ñoo tax donc monsieur ministre na nga xam ni. bëgg nañ nga toppal ñu ko ba wax ñu ñun waa Italie luñ ci am ndaxte ki nga xamante ne mooy xale ba toog fee ndax 5000 euros ñu war koo tëj 30 ma waxoon la ko daaw ma nga fa ba tey di xaar son procès te avocat ya delloo nañ ñu dossier ya ne ñu dootuñu ko juger parce que tout simplement fayuñu 5000 euros te njabootam amuñu euh, monsieur le ministre. damay ñëw ci doléance boo xam ni émettroon naa ko muy recrutement dans le milieu des gardes pénitentiaires ak une formation pour ñu mën a am li nga xamante ne mooy formation bu baax ndax ñu mun leen defal ay salaires yu baax gis naa ni jël nga ko en considération euh, ministre les longues détentions provisoires ak procès yi ni mu yéexee yow kilifa nga monsieur le ministre yàllaa la teg ci boppu ministère bi nga def ko daaw ñu ni mënoo bàyyi nga ñëwaat ren kiy dénkaane moo lay dénk ñun dénkuñu la kon moom jàpp na ni mën nga léegi ñun liñ la mën a wax mooy di la tànc di la yokkal di waxtaan ak yow lii nga xamante ne mooy ay faay nga di ko retrouver di ko solutionner ndax ñun rek ñoo la ko mën a wax ñi ci des dañ lay tàccu ministre euh, affaire Assane jouf buñ ko xeeb jaboot la papa la immigré la ñëw ci dëkk bi ñibbisi am problème nga téye ko justice téye ko boobu ba léegi ñu wax ne tànkam damm na ba li nga xamante ne moo yàgg na ci kaso bi tànkam damm na fa ba daanaka ñu ngi koy waaj a dagg monsieur le ministre ñu lay ñaan nga bàyyi ko te yàlla rek tax ndax la mu defoon amaana su fekkente ne dañoo jàpp luy yàq la xëy na lii xew mën na koo yar ndaxte sonn na ci kaso bi monsieur le ministre je m'adresse à vous en tant que ministre, tant que ministre dépositaire de confiance du président de la République, Baye Hassan Diouf. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Sidi Traoré. Et après lui... Parle la wax, parle, parce que tu fais ton parler. Une 13, une 12, que tu viens à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président.